de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal mbokk yi di leen ñaanal kendaluk jàmm tey di leen wax euh, mu baax mubaarak ma dalal Kajoor mu ngi ci plateau bi Kajoor maa ngi lay nuyu di la dalal bu baax. maa ngi lay fay euh, Aïcha di wax gloire à Dieu sant yàlla mi ñu may ñu fekkee ñuy nuyu. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy teewlu. Euh, dalal ak jàmm la revue web dañ koy tàmbali ak euh, ab laq-laq bu métti métti nga xamante ni am na fële ca Kédougou. démb la am amee foofee ca euh, Kédougou ca gare routière ba foofee ca Kédougou ca ay booru vingt ñu ne nag boobule lakk-lakk donte sax xamuñu. ana lan moo ko euh, waral waaye euh, lu ñu mën a jàpp rek mooy bëri na ay yàqu-yàqu yoo xam ne nemmeeku nañ ko bokk na ci euh, benn ci atelier yu gën a mag foofu di atelier vulgarisateur yu gën a mag ak Euh, li nga xam ne moom mooy atelier soudure ba ci ab agence de communication ak yeneen i bërëb yoo xam ne euh, dañu fay euh, amale ay activités commerciales yooyu moom moo daal di takk ca noonu nag ñii di sapeur pompier yi. ba ñu buggee nag fay takk tàkk yi amoon nañu jafe-jafe lool ngir mën a def seen liggéey na mu waree bokk na ci nag la waraloon jafe-jafe yi ñàkkum ndox naka noonu euh, yenn jafe-jafe yi ñu amoon ngir yegg ci yenn bërëb yoo xam ne mu ngi doon euh, takk euh, ñii di woy takk der itam ña nga foo ndax dañu ñëwoon ngir aar di sapeur waaye itam ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo nekk foofu ca gox ba li ñu mën a jàpp rek mooy donte bëri na ay yàqu-yàqu waaye amul kenn koo xam ne. ñàkk na bakkanam ci boobu la jéeya. waa Seneweb nag ñoom ñu ngi focus ci face à bi nga xamante ni war na am diggante juge bi ak kii di Thierno Cissé. waaw dafa am sax daanaka ndimbal woon euh, ki nga xam ne nag moom mooy Thierno Cissé lu toll ci euh, juróom benn juróom benni weer la fas yéene lañ ko fas yéene euh, tëdduloo kaso. waaye itam dina fay lu toll ci cent mille francs ci ndampaay sotti ko trésor publique loole nag moom mooy la russe ci atte ba ñu ko doon euh, atte Euh, ca tribunal des flagrants délits bu Dakar moom euh, Thierno Cissé nga xam ne dafa sampoon dëndëm ngir bokk ci euh, présidentielle 2024 yi ñu ngi ko tegoon loxo ci ayu bis yi nu weesu foofee ca conseil constitutionnel ginnaaw ba mu dugalee boolee ay député yoo xam ne daanaka existé wuñu ci liste bi nga xam ne moom la fa yóbbu woon janoo ne lañ ko daal di teg loxo ci janoom nag ak juge bi moom dafa wax ne eh, dafa eh, prêté non coupable maanaam la ñu ko doon eh, tuumal nee na defu ci dara nee na nag moom am na chéquier am na compte itam nee na dafa def chèque bi waaye caution bi ak chèque bi daf ko déposé waaye nee na Euh, clôturé wul euh, compte bi euh, noonu la expliqué li nga xam ne moom moo waral compte bi ñu wax ne daf ko déposé te compte bi amul dara li nga xam ne nag moom mooy instruction yi di wéy mu daal di euh, xamle ne moom ndëndëm ngi mu samp daanaka jugewul ci moom jugewul ci beneen doomu aadama nii na yàlla suñu borom moom moo ko feeñu daal di koy wax mu euh, nekk euh, candidat nee na nag nekkul ci benn farce comme ni ko nit ñi di waxee wala nekkul itam koo xam ne ku njuuj njaaj la nee na nekkuloon ci benn fo moom la le 26 août bi weesu euh, dafa annoncé candidature am ba pare mu jaar fépp foo xamante ni foo la candidat yi waroon a jaar ngir bokk ci euh, joŋante yi donc moom nekkuloon benn yoon di foote lépp loo xam ne def na ko ba nëgg nii euh, daf koy assumer moom mi nga xam ne daanaka ci wàllu informatique la la la la ñu ko tàggatee loolu mooy formation am. tribunal bi nag euh, ba mu gisee ne la mu def dafa jéggi dayo moom leaderu major 2024 boobee nag ñu daal di ko euh, teg daan boobu ñu di ko toppee nag confection de faux parrainage maanaam def ay parrainage yoo xam ne dëppawul ak euh, dëgg waaye itam faux et usage de faux en écriture publique ci réquisitoire bi nag procureur bi dafa sakk woon atum lëm mu tëdd ko kaso waaye itam juróom benn weer yoo xam ne itam euh, dafay ñeel cheque en bois boo xam ne nee nañu moom la euh, déposé ci explication yoo xam ne moom moo jugee ci euh, waa këram di famille nga xam ne ñu ngi nekk ca parcelle Parcelles Assainies ñoom nee nañu Thierno Cissé daanaka dafa am ay jafe-jafe ci wàllu xel te loolee ma ngi ko amee bi mu demee ca Canada ba léegi la ñu nemmeeku loolu toll na nag si ñetti at boobu ba léegi nee na proposé woon nañ ko sax mu dem hôpital ngir ñu saytul ko euh, yaramam rawatina xelam bi nga xam ne nen dafa suutante waaye mujju la euh, nangu euh, def lu ni mel. dañuy dem fële ci immédiat ñu ngi ñuy xamal une hausse des pensions de retraite. waaw du nouvelle la boo xam ne dina neex lool ñi nga xam ne retraité la ñu jamono ji ndax institution de prévoyance retraite bu Sénégal kuréel gi nga xam ne daanaka moom mooy toppatoo payooru retraité yi moom moo daal di fësal ni ki démb ci ab bataaxal ba mu tasaare na dañoo fas yéene euh, yokk li nga xam ne moom mooy euh, payooru retraité yi euh, ci téeméer boo jël fukk ñu daan lañ ci daal di yokk loole nag dana tàmbali fan wu njëkk ci weeru janvier bi nu nekk décision boobe nag nee nañu dafay jóge rek ci ay recommandation yoo xam ne conseil d'administration ba moom moo ko dal di fësal mardi bi ñu weesu directeur général ba nag di Amadou Lamine euh, Dieng moom la mu xamle mooy IPRES dina euh, def kéemtalaay kattanam ba gën gi yàgg euh, juróomi fan ci weer wu ne ñoom ñu mën a jot seeni payoor loole nag nee nañu ngir fexe rek ba gën a ñoŋal seen dund ñoom retraité fii ci Sénégal. dañuy dem fële ci Africa News ñoom nag ñu ngi wax ci CAN bi ak euh, panique bi nga xamante ni équipe nationale euh, gambienne amoon nañ ko ci seen voyage bi. effectivement mercredi la woon euh, ñoom nag gay équipe nationale Gambie ñoom dañ doon jóge Gambie doon wutali Côte d'Ivoire fu nga xam ne fala la bi nar amee waaye ginnaaw ba roppalaan bi dawee lu toll ci juróom-ñeenti simili dañu delluwaat daal di atterrir waat Banjul. ndax euh, problème technique suñ sukkandiku ci fédération gambienne bu football ci communiqué bi nga xam ne daf ko fësal ci euh, Facebook bi ginnaaw euh, atterrissage boobee nag nee nañu li nga xam ne moom mooy cabine bi dafa manqué woon oxygène loolu la ñu wax ak pression ci cabine bi ak manque d'oxygène loolee moom moo waraloon. li nga xam ne moom mooy avion bi dellu siwaat ñu gaare ko par mesure de sécurité euh, léegi nag compagnie euh, aérienne bi di air euh, air d'Ivoire mi nga xam ne moom moo leen doon yóbbu ma ngay doon saytu nag pour xool lan moo waral mu manqué oxygène naka noonu mu am tam pression ci cabine bi joueur yi nag comme nañ leen ko waxee léegi ñu ngi doon wutali Côte d'Ivoire ngir teewee ci fanweer fanweer ak ñeenteeli édition boo xam ne moom moo ñeel euh, réew Afrique yi ci wàllu euh, football nga xam ne ñu ngi ko naroon amal euh, juin ak juillet deux mille vingt waaye ñu daal di koy dàq ngir mu bañ a yemoo ak jamono joo nga xam ne taw bi dafay bëri foofe ca Côte d'Ivoire loolee tax ñu dàq ko ba deux mille vingt quatre bi. entraîneur u bi nag nga xam ne euh, doomu Belge Belgique la euh, moom mu ngay euh, xamle ne avion bi daanaka ñoom sax daanaka seen xot seen bàkken dafa nekkoon ci xottu gerte am na sax bu loolee amee ñoo xam ne donte ñëw nañu ba atterrir sax mais taxuloon ñu ximaliku ndax yëf yi xawoon na jéggi dayoo. sant yàlla rek ba nga xamante ni li ñu doon ragal amul. Euh, Kajoor ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup ma dalal Pape mu ngi ci plateau bi Pape maa ngi lay nuyu di la dalal. di kontaan di la retrouver di nuyu aussi Kajoor si seen euh, ak euh, jàmm Kajoor naka nga gisee Thierno Cissé ak décision bi nga xamante ni justice jël na ko ci moom keroog rek on en parlait kenn mënul woon comprendre lan moo tax. wala boo kenn mënoon expliquer lan moo tax mu jëf-jëf jooju noonu. moi je l'ai compris juste à la fin ah quand famille bi nee na wérul parce que keroog bi ñuy wax fii loolu laa wax moi je me suis dit bon nit ku ànd ak xelam dëgg-dëgg. Mm. du ko du du du du du yu mel noonu parce que bu même boo bëggee. boo bëggee def dans dan dans dans dans dans dans je sais pas moi boo bëggee njuuj njaaj di nga am peut-être am un peu d'intelligence boo koy ah. defee doo dem député bi nga xam ne euh, bëriwuñu ñëpp xam nañ leen nga nga nga jël leen pour pour lui donc il y a quelque chose qui va pas dans dans ce monsieur là te loolu dafay ramener waat cette question de la prise en charge Euh, de la santé mentale des gens mm-hmm. parce que euh, bon peut-être c'est un intellectuel nee nañu informaticien là et tout je sais pas son train de vie son niveau de vie et tout mais Sénégal pour ñoom tant que yaa ngi liggéey xëy dem liggéey wala yaa ngi am xaalis yaa ngi dawal sa oto yu neex wala dara tu tout tout est tout est nickel tout est bon alors que euh, le gars boo xoolee boo defee une lecture vraiment sereine de la situation di nga xam ne yaa a quelque chose qui ne va pas mais non euh, nee nañu six ans six mois moom lañ koy tëj euh, il va être emprisonné alors que peut-être dañu ko waroon suivre parce que je pense qu'il a besoin d'aide. Ouais. Euh, il est, il est, il est mentalement euh, dérangé au lieu que ñu ñu def suivi bi parce que c' même pas intéressant bo xoolee sénégalais yi sax scandalisé ñu à la limite ça fait rire les gens. ça fait rire les gens après nga jël ko nga ne da ngay da ngay euh, sanctionné nga jël ko nga tëj ko alors que c' est quelqu'un qui a besoin d' être suivi euh, psychologiquement je pense que je vois pas l'intérêt en fait je pense que sa place n'est pas là-bas nañ ko yóbbu mm-hmm. foo xam ne vraiment il va remettre de l'ordre dans ses idées euh, mu reprendre waat euh, sa bu fekkee famille bi li ñu wax moom c'est avéré kon place am ah, moom du foofu voilà moom laa si c'est avéré bu dee dëgg la place am du foofu man en tout cas man lu ma lire yëpp ce matin euh, lu ñu rapporté yëpp nee nañ il était confiant niruwul woon koo xamante ne ku ku wéradi la euh, et puis il a répondu à toutes les questions yu ñu ko posé euh, mu ne regretté wul dara bon je ne pense pas que koo xamante ne dafa taxaw ne bon et puis ay wax ak ay waxi nit xam nga su fekkee sax da nga def benn affaire et puis voilà tu tu le fais bon euh, que nit yi di wax mais kii est-ce que wér na et puis nga assumer xam nga ñun ñu tous on se disait ça on se disait que moom est que lu mu def mu wér na mais assumé na loolu lu mu def nee na mais lu ma si jaaxal rek mais nee na bon soxlawul nekk président mais ku soxlawul nekk président looy déposer ay euh, ay député pour. candidaté boo loolu rek mu ma si xaw a jaaxal peut être <laughs> am na contradiction si côté boobu noonu. après yàlla moo ko feeñu. waaw pour mu waaw waaw yooyu aussi ah, tamit. yooyu aussi waaw yooyu yooyu tamit ay. aussi bàyyi si yoo xamante ne bon c' est peu <laughs> boo interrogé woo bon tu te dis que mais bon euh, man man en tout cas lu ma lire yëpp nee il était confiant bon voilà et puis il répondait à chaque question. et puis ragalul woon dara donc euh, bon voilà mais tëj nañ ko parce que faux la. Euh, mais je pense que mënoon nañu am peut-être benn mm -hmm. je ne sais pas benn indulgence bon à son égard comme que y a ça. Mm -hmm. euh, y a cette question là. ñu jéem a xool ma xam bon na lañ ko mën defee pour jéem a. ko dem faj yooyu noonu bon mm -hmm. voilà peut-être moo parce que moom mën nga comme que yor lu mu wax ba tu peux être malade et puis être inconscient de ça. parfois sax euh, dagguma la de mais parfois ñi am. Euh, déséquilibre mental boobu mm. c'est-à-dire ñoom sax duñu ko nangu déjà pour commencer am na ñoo xam ne du ñu xam ne ils ont ce problème là donc loolu yëpp c'est des choses yoo xam ne franchement loolu loolu moo tax parce que même le juge qui dit il était serein wala le journaliste qui était là-bas mm-hmm. mu gis muy tontu di di kii euh, on n'est pas spécialiste de de de ça donc euh, man j'aimerais bien bon pour demain je respecte ce que tu mais j'aurais bien aimé aussi am l'avis d'un d'un d'un SICAP voilà, pourquoi ouais, pas ouais, par rapport à à la situation. mais mais mais mën nañu mën nañu bon peut-être je ne sais pas mais mën nañu ko suivre xool ma xam bon est-ce que qu'est-ce qui se passe affaire yooyu noonu parce que bon. Euh, mënoon nañ pour man mënoon nañoo boo dawal indul bon y' a même si si si y' a ces questions là rek. Mm. ndax wér na wala wérul ñu dawal un peu indulgence moo jéem a xool ma xam lan ah, moo si nekk. xëy na xëy na fan ko nar a yóbbu danañ ko booleeg. Euh, certainement benn psychiatre bu ko bu ko bu ko suivre. di ko foofu aussi beneen monde la. Euh, mu ngi noonu alors euh, yokkute pension wu retraité yi loolu moom c'est une bonne nouvelle. waaw hmm? ah, waaw c'est une bonne nouvelle moom parce que euh, seen yi ndaw na torop ndaw na hmm. torop torop torop torop torop donc ça c'est une très bonne nouvelle et on félicite vraiment l'initiative de l'administration hmm. du conseil d'administration et j'espère que euh, comme ni ñu ko waxee te te dafa coïncider démb rek on me parlait d'un cas boo xam ne le gars il est à Ziguinchor bi mu décédé après euh, sa femme dem pour jël euh, pension de ñu ne ko mën a goo jëlagum parce que dañuy mhm. dañuy bind dañuy euh, bind Dakar pour wax leen ne le mari est décédé donc apparemment su décédé dañuy def moitié bi la ñuy dagg ñu kii donc dañuy revoir liñ lay jox par mois léegi le temps loolu mu ngi daw mhm. mu war na mat ay cinq xaw ma quatre cinq mois mais chaque mois mhm. bu ñu envoyé xam nga trésor la xam nga kon mooy occupeur yi bu ñu waa waa IPRES bu ñu envoyé xaalis trésor bu envoyé xaalis parce que mhm. ci numéro le le le lay la ñuy envoyé Wave bi bu ñu ko envoyé Wave bi léegi waa fee dañ koy dañ femme bi dañ koy wax mu récupérer xaalis bi mu yóbbul leen ko ah waaw léegi xaw ma nag problème bi loolu lan la noonu parce que nee nañu tant tant que defaruñu lii Euh, loolu dañ koy delloo te moi je suis sûr que si seen poche lay dugg vraiment Euh, ah, ay arnaque la yoo xam ne door waar la donc il faut loolu la nee nañ ko tant que waa Dakar defaruñu papier yi ba ba nga commencé kii donc luñ la envoyé rek da nga da nga koy déjà ñoom mënuñu ko récupérer donc c'est la femme qui récupère et qui pour dem jox leen ko ñoom daf ko eh yóbbu dem jox leen ma mhm. ñoo amoon nañu ay jafe-jafe par rapport ak plateforme yi ñu utiliser parce que gars dañ doon virer bon si plateforme digitale yi ko ñoom ñu mooy bàyyi ñu dem retirer foofu seen salaire te yooyu amoon naa jafe-jafe que ñoom dañ leen di couper parfois buñ ko envoyé foofu dañ leen di dagg te seen kii euh, seen salaire du woon du woon dara mais mais mais mais c'est une c'est une bonne chose mm-hmm. boo xamante ne euh, dina tax ba nga xamante ne bu ñi nga xamante ne ñu retraité ñu jox leen respect en ce sens là et puis peut-être je ne pas Euh, jéem a diversifier ça par rapport au secteur secteurs Macky Sall le 3 le bi weesu mooy mooy kii euh, feetu travailleurs yi da doon wax ne mënul yokk ay salaire parce que état Sénégal déjà dañuy leb xaalis et tout donc euh, et puis charge salariale bi dafa diis donc mënuñu ko yokk bon que ñu gis li xaw ma xam campagne électorale la xaw ma la mais bon c'est une c'est une bonne chose ça peut être une camp benn parce que paa ak maire yi ñoom presque ñu si ma dañuy voter massivement à chaque dañuy voter massivement alors man dama yaakaar ni avion bon jàpp naa ne avion balaa moo décoller am na ay contrôle yu ñu war a def saytu xool ah ba lépp impec mu soo ko décoller mm-hmm. mais comment se fait-il que waa Gambie war a mën a am problème bu mel nii bon négligence manque de vigilance man xaw na ma jaaxal daal vraiment bon bu fekkee daw na neuf minutes waaw ah. ñu ñu ñu kii ko c'est parce que avant neuf minutes yi munoon nañu xam ne il euh, y a une panne maintenant est-ce que euh, le contrôle bi waroon def nañ ko ça m'étonnerait parce que bu ñu ko defoon au moins xam nga lu daw ba pendant des heures mu soog a panne mën nañu ne en cours de route lu ne mën na am mais ah, juste après neuf minutes mu panne c'est que euh, peut-être la panne était était était déjà prévisible bu amoon contrôle bi waroon donc loolu noonu yëpp c'est un prévenir à à, à nos uh-huh. parce que Air Sénégal tam boo wax rek baa bi ci des boobu peut-être Air euh, Côte di bu Air Côte d'Ivoire la moom moo jëli Gambie parce que defe naa bi ñoom defe naa ñun rek la ñun ñoo leen tan xaw ma mais <laughs> <laughs> du coup euh, avion bi compagnie bi compagnie ivoirienne la léegi euh, da ngay xool Air Sénégal aussi. amuñu doole daal maanaam amuñu doole. Euh, le service le service laisse à désirer parce que loo loo fa mën a wax man nga ko wax ci Air Sénégal bi ñu yor fii donc c'est c'est compliqué euh, xaw ma nag lan mooy solution bi mais c'est ces problèmes la souvent Afrique rek la nga nga koy mën a gisee sunu compagnie africaine te xam naa manque de moyens moo koy waral. bon euh, bon Air compagnie bu bu bu série bu série par rapport ak ñeneen ñi bon compagnie bu sérieuse la Euh, peut-être je ne sais pas mën na nekk benn quoi technique mais bon euh, du ma génn si Kajoor Cissé lu mu wax parce que moi je suivais un documentaire récemment il y a bon il y a un chose comme ça euh, président euh, centrafricain moom mooy Archange Touadéra daf doon <laughs> situation bu cocasse daf doon defarlu benn avion que bon on a besoin de 37 millions xaw ma 38 millions pour réparer benn aile Euh, après on s'est rendu compte que bon voilà presque une heure plus tard el bi dafa fax affaire yooyu noonu ba avion bi nar a def crash euh, loolu boo wanee nii te ba pare ba pare avion boobu euh, presque daté de lu mat 30 ans euh, moom mooy wala plus sax mu mu mu muy daw dafay wane benn moom mooy déchéance bi nga xamante ne moom moo am si suñu compagnie aérienne yi Euh, ñun amuñu yenn expertise yi donc on a besoin des autres pour nga xamante ne euh, dinañu mën a jàppale euh, ñu xool lu nga xamante ne moom moo di moom moo di service service aérien yi peut-être ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi tane Air Afrique na kii na amatul. Mhm. ça n'existe plus gars yi Afrique prix chef d'État yi caaxaane nañ ko ba mu daanu amatul dara. ñi nga xam ne ñoo fi tenir lu coup nekk fierté africaine ñoom ñoo éthiopiens yi ñoom ñoo fi yor benn flotte boo xamante ne daal macha allah soo fa demee moom di nga xam ne fii. y a du travail ñeneen ñi si des ñoom moom dañuy rafistole rek. Badou. waaw dañuy dañuy taf yëngal li gars yi di wax. <laughs> taqale ñëpp <laughs> ñëpp <laughs> alors. merci beaucoup en tout cas Kajoor ci xibaar yi am na solo quand on parle de politique vu que voilà tout le temps il y a des il y a des trucs yu bees. Mm-hmm. Euh, ñu bref rapidement gis naa Aminata Touré Bougane Gueye Dany ak ki nga xamante ni moo ci Abdou Abdourahmane Diouf ah ñu génn di ñaawlu la nga xamante ni ah, moom moo am ah, ci parrainage benn est-ce que jàpp ngeen ni que combat boobu dinañ ci am gain cause beneen bi mooy est-ce que gisoo leen benn éventuelle collaboration wala benn alliance entre ces bon man lu ma si lu ma si wax moom mooy keroog révisé naa code électoral bi article L cent cinq L cent L cent cinquante six dafay wax recours ci candidats yi candidats yi mën nañ def recours mais ñoom est ay candidats la je le pense pas candidat moom mooy koo xamante ni conseil constitutionnel affiché na par exemple diw diw diw nga remplir critères yëpp boobu su fekkee nekkuloo ci mën nga def recours mais bii nii. avant avant avant publication liste bi je ne pense pas que je ne pense pas que recours boobu dina dina dina sotti parce que je vois plus foo je vois pas foo xamante ni si code électoral bi remine wax nañ ne euh, diw dafa war a def recours recours bi nga mënoon def moom mooy ci parrainage par exemple su fekkee da nga déposer ay parrain bu fekkee dafa am ay doublon externe am nga droit régulariser euh, 48 heures mais loolu soo ko defee su fekkee dañ la écarté euh, c'est c'est fini ñoom nag ñu ngi ŋaaññe li nga xamante ne ñoom ñooy conseil am na ñoo xam ne ñu wax nañu changé seen fiche am ñoo xam fichier électoral bi la ñuy mais quoi quoi qu'il en soit je suis c'est dommage pour eux que ñu bañ a jàll parce que bon peut-être ay candidats yoo xamante ne yu crédible lañ yoo xamante ne peut-être am nañ certaine représentativité mënoon nañoo dem élection contrairement à d'autres mm -hmm. donc loolu rek laa si laa si ñaawlu et puis peut-être suñu génnee si euh, phase bii nii euh, dinañ demaat beneen phase ñu jëm a càmbar li nga xamante moo di système parrainage parce que y a beaucoup de polémique euh, am na ay quoi am na ay dysfonctionnement ay contradiction yoo xamante ni fokk rek ñu càmbaraat ko xoolaat bu baax ba nga xamante ne bu ñuy dem si élection présidentielle benn coow du ci am éventuelle euh, alliance. alliance euh, c'est-à-dire ñoom ñett. bi euh, ko ñoo bokk li ñuy li ñuy mais ñoom ñett alliance mais bu fekkee da ngay alliance da ngay koo xamante ne dafay dem pour présidentielle mm. mais ñoom ñett su fekkee dañoo allié boo bon pour de toute façon ñoom kenn mën nañ booloo boole seen doole jàppale kenn bon je ne sais pas mais loolu est-ce que c'est pertinent je ne pas ñoom ñetti bu fekkee ne alliance bi moom mooy par exemple yow kenn bi ci nekk nekk candidat koo xamante mën na dem nga booloo nga jàppale ko mais bu fekkee da ne allié def trio mais pour pour kan ngay ngay ngay jàppale ban candidat peut-être je ne sais pas candidat wu yenn ah. candidat wu Pastef yi wala je ne sais pas yeneen candidat yoo xam ne ci opposition bi lañ nekk mais je trouve que ñoom ñu allié wu noonu peut-être et puis li nga xam ne moo si gën cocasse moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñett ne nañuy allié wu pour xeex conseil constitutionnel nee ni je trouve que seen combat bi c'est mal euh, c'est parce que tout simplement amul benn chance Euh, suñu sukkandikoo si code électoral bi mu mu aboutir. très bien Kajoor mbaa doo ma ne c'est bien fait pour. waaw je sais pas en fait même même répétition lay doon rek su ma daanelee ci deuxième point bi. Uh-huh. su ma commencé deuxième point par rapport ak seen euh, alliance boobu ñuy def noonu. ils vont se regrouper parce que ce sont les lésés de de de du parrainage mais non mënuñu fournir autant de. de de d'effort pour éle bokk ci élection yi ñu ñëw génnee leen ci ba pare ñu dem toog croiser les bras ils vont être des des des des de troubles ils vont venir euh, je sais pas am na ku ci nekk ak li ngay waxee kii nee na moom il va tout faire ba comme Bougane il va tout faire ba régime bi euh, daanu donc il va participer en ni muy ni mu koy defee moom moom moom la nit ñi desee xam euh, Aminata Touré même chose euh, Abdourahmane Diouf moom ba léegi on dirait qu'il croit qu'il peut toujours être candidat donc loolu c'est c'est c'est tout à fait normal parce que dañ dañu bëgg des ci jeu politique bi bokk ci élection yi ku nekk nag ak anam bi nga ko def maintenant pour deuxième kii bi je dirais ce que je vais dire c'est bien fait pour eux parce que euh, dara boo koy xeex da nga koy xeex ca ca ca ba nga ko waree xeex du ñu ñëw ba jamono ji jël nga conseil des ministres du leen conseil Mamadou Diop Decroix wax du leen sax faale ah, parce que am na loo xam ne Pape Malick wax na ko léegi c'est-à-dire que ñoom li leen institution c'est-à-dire que lu leen di jugloo mooy loo xam ne c'est dans le code électoral ah. ñoom ils sont out donc seen seen bruit c'est dans dans la sphère politique dans dans le dans les la presse out mais dans les faits ñoom ils sont out ñoom xam nañ ko sax mu ngi noonu ñoom ñoo la ko gën a xam donc Euh, xeex dara bu amee ba ba nit ñi di wax waxu parrainage bi na Aminata Touré moom en personne moom boobu mu ngi nekkoon ci gouvernement mu ngi nekkoon ci gouvernement balaa muy génn defoon na sorti boobu mu ngi yoon sax boo xoolee presse bi boo duggee ki di nga ko gis mhm. là où elle disait que le parrainage ne souffre d'aucune anomalie xaw ma lan quelque chose du genre genre elle disait que parrainage bi dañuy wax mais parrainage bi amul dara lu ci gàkk c'est elle qui ci biir la newoon parce que mu ngi yoon fële donc nañu nañu Euh, culture di défendre la lu droit lu jub nga wax ko lu jubul nga oser wax ko boo ko mënul oser wax nga noppi sax bu fekkee peut-être fi nga nekk da lay tënk nga noppi mais mënoo génn ne parrainage bi dara baaxu euh, parenage bi dara gàkku ci tey nga nekk de l'autre camp nga taxaw ne baaxul parce que subir nga ko moment ba ñeneen di subir ba yow nga génn pour wax ne dara gàkku ci ñoom dañu doon subir loolu yow fi nga nekkoon dafa nooyoon nga génn ne euh, dara gàkku ci tey yow yaa ñëw ci ci ci bekkoor bi nga bëgg a ñëw duñu la déglu sénégalais yi dañoo sonn tamit ci ci euh, volte face boobu noonu. Kajoor fàttali gi ngay fàttali dafa am solo parce que xam nga Sénégal comme chaque jour ak événement yi xew du coup gaaw a fàtte mais lii nga wax nii lu am solo la. donc mu ngi noonu merci beaucoup en tout cas ñu jaajëfal leen bu baax a baax restez bien avec nous amis téléspectateurs je vous propose de regarder un clip le temps que ñu dikkaat bu ko defee ñu dalal sunu gan